Si c'est la toudou du président zone 7A donc nous ngi leen di de bu baax baax di leen gëreum amuñu donc en TV ak zone 7A ak zone 7C il faut que nous ayons une collaboration un partenariat pour que gagne bi gëna mëna y a jaar yoon donc yalla dogal na taïmo suñu journée d'ouverture donc qui a opposé en première euh, heure ASC HLM Mars contre ASC Waldan donc deuxième heure bi dafa avec Kasanka ak euh, kër donc am a troisième heure et na quatrième heure euh, ñaari zone une dañu dañu dañu liggéey ci interzone pour réussir réussir journée bi donc vraiment di refais bu la présence de toute la population anoise et d'Alifor Foray parce que c'est très difficile d'organiser ces matchs euh, dans ces conditions ndax ñun yarax bañu dëkk dañu am problème infrastructure dañu am problème terrain de football Mom moo ñu indi jëlee ñu yaraax indi ñu Pikine donc metti na pour nga déplacer public bi metti na euh surtout suñu raq ak suñu doom yi ñu nekk ay xalé da ngay tit di tit ba match bi di jeex te on joue quatre matchs on on on arrête à 23 heures da fay xawa doy war mais si ndimbalu suñu borom yalla mu ñu suturaal depuis daw jéeg ak daw ren mooy suñu troisième année ñuy organiser fi 2012 aussi ñu ngi fi won donc euh, trois années successives ñu ngi organiser fi yalla mu ñuy sutural amul ben manam incident yi fi am ñu ci ciy sant suñu borom di ñaan yalla yalla jàppale ñu ba ñu organiser ko ci condition yu meilleure footballu yarax les gens dañu gis ni football bi demul kanam fay dem ginaaw lolu lu ko waral bari na suñ ko naree nek développer peut-être mën nañ fi peut-être manque d'infrastructure peut-être aussi euh, jàppale bi dess na peut-être aussi suñu ndaw ñi peut-être ASC yi amuñu yenn moyen suñu ndaw dañuy bayyi zone fi di dem di fubal yi dans les zones de Dakar lool tamit contrainte la mais quand même avec les moyens du bord c'est-à-dire y a y a de bons dirigeants waaw les membres du comité directeur ñu ngi fi ñu ngi partout ñu ngi gorlu ñu ngi def luñu mën pour organiser les matchs dans de meilleures conditions pour organiser les ASC pour ñu mën a téye seen joueurs yi pour ñu mën en am une certaine organisation majeure. Sur le plan culturel, comme toutes les zones du département de hein, on essaie de, faire aller. sur le plan sportif, on organise des matchs de football, on organise des, compétitions euh, d'athlétisme. Mais quand même sur le plan culturel, on organise chaque année des compétitions théâtrales. Mais malheureusement, euh, le théâtre, c'est le parent pauvre de, notre, de notre mouvement. Mais quand même, on essaie de, de faire peut-être améliorer les choses euh, tantôt au niveau du département, tantôt au niveau des quartiers de la, localité, de la base. Quand même, cette année-ci, on a déjà trois ASC, trois troupes théâtrales, trois ASC qui compétissent. Peut-être dans les jours à venir, il y aura des ASC qui vont se manifester. Mais quand même, quand même, il y, a, le président de la commission socio-éducative qui mène une politique culturelle extraordinaire. Il est en train de faire une tournée même au niveau des, ASC e pour les inciter à participer aux compétitions culturelles.